dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gii di Rewmi Quotidien ak L'As ak Le Témoin Vox Populi Les Échos yéenekaay yëpp xëy dikkal ñu ci suuf si ak ni nga xam ne moom lañ koy saax-saaxee ci Ndakaaru loolee moo tax njiitu réew mi di président Macky Sall mer na ba maara détaal yi daal di wax ñu dàkkal lépp loo xamante ni jëm na ci projet aménagement ak lu jëm ci wàllum attribution yéenekaay gii di Rewmi Quotidien mu ñu xamal laan ñu waa Descos ñoom jamono ji commencé nañ seenub liggéey ndax bëri na ay construction yoo xamante ni doon nañu ko amal ca maanaam ñu ko daal di dakkal yéenekaay gii di laas mu xëy di ñu xamal naan ñu lu jëm ci wàllum suuf ci Sénégal rawatina Ndakaaru maanaam pagaay bi nga xamante ni moo si am ku ñu ko wax doo gëm waaye nag Macky Sall daan nay wax ñu dakkal lépp loo xamante ni jëm na ci wàllum saax-saaxi suuf si yéenekaay gi mu ñu xamal naan ñu jamono ji kay li askan wi sàkku maanaam ñu daal di auditer ni nga xam ne moom la ñuy joxe suuf si yéenekaay gii di la témoin mu xëy di ñu xamal naan ñu xeex bi nga xam ne Barthélémy Dias daan na koy sumb ci lu jëm ci wàllum littoral bi jamono ji nag Bamba Fall ak Guy Marius Sagna ñëw nañ di ko jàppale ci xeex bi yéen a kaay gii de ñu fekk fa Cheikh Omar Sy moom nag mu xëy def ay révélation yu doy war nee na suuf si ak ni nga xam ne moom lañ koy saax-saaxee si Ndakaaru maanaam ay kilifa diine ñoo koy def maanaam ay marabu ak ay magistrat ak ministre ak ay homme d'affaires maanaam borom doole yi ñoo nekk ci réew mi di saax ala alalu réew mi yéen a kaay gii di l'info mu xëy di ñu xamal na ñu Mame Boye jaaw mi nga xam ne mooy directeur général impôt et domaine moom jamono ji soo muy ay mbiram danañu ko daal di lijjanti te maanaam sax ji mooy li ñu ko dénk moom la atunuta ndax am na lu toll si juróomi junni ci ay mètre carré yoo xam ne moom Mame Boye Diao jox na ko am ministre yéenekaay gii di Vox Populi ak réew mi quotidien ñu xëy fekk fay waa Y'en a ñoom nag la ñu xam le nee nañu bu ñu waxante dëgg Macky Sall ci boppam moo nekk ab cuune te dafa bëgg a taafantaloo Covid 19 bi maanaam di def ay njublang ak i tojaange ci réew mi ak i làmbatu yoo xam ne loolee ci boppam la ñu bëgg mu dakk ba tey ci biir yéenekaay gii du L'Observateur mu xëy di ñu xamal laa ñu Luc Nicolaï mi ñu jëlee ca kaso ba sa saint andi ko Thiès ba léegi ni ma ngi ci gerewu xiifal la maanaam lal bi nga xam ne moom lañ ko joxoon daf koo gedd sax tàllal ab piliyaanam daal di say tëdd yéen kaay gii de la témoin mu xëy di ñu xamal nañu ni ki démb ci conseil des ministres bi njiitu réew mi di président Macky Sall dafa daal teg soo ko ërtal gouvernement bu Sénégal ngir nag ñu daal di lijjanti jafe-jafe yi nga xam ne secteur privé bi am na ko bàyyi ko ci Covid 19 bi tey jii sax ministre Amadou Ordina daal di dalal lu toll ci juróom benn ci ay ministre journal bi mu ñu xamal nañu lu toll ci deux cent milliards njiitu réew mi di président Macky Sall pare ngir jàppale ko secteur privé bi Quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu tojaange yi nga xam ne ñenn ñi dañu leen koy jiiña waaye dañuy jekk-jekk bàyyi leen ci mbir moo xam ne dafay tey xel mbir moo xam ne mbir mu doy waar lay doon rawatina mbiri coon sekk ak Seydina Fall Bougazelli ñaar ñi maanaam dañu leen a jàpp loxo ci poos lu jëm ci ay tojaange ki njub ngi luqi njuuru jëm ci mbirum fuub yi dañu leen a tëj ci kasu bi ba mu yàgg ñu jekk-jekk bàyyi leen ñenn ci askan wi nag daan nañ koy ñaawlu docteur El Hadji Malick Pouye moom nag di ab gëstu kët ci université Cheikh ni mu gisee mbir moomee maanaam ak docteur ji bi jaxate moom nag dafa daal di jàpp ne dal soo amul doo dara ci réew mi kenn ku nekk dina xool nan lay amee yéen gi nee na en tout cas li am ba des faux billets yi jamono ji mën nañoo wax ne ndakaaru mooy épicentre bi journal bi di source amu xëy di ñu xamal naan ñu woppi coronavirus ci réewum Sénégal ak bu 10 heures jotee maanaam fukki waxtu ngeen gis Xamees Ngom Ndiaye wala Abdoulaye Diouf Sarr wala docteur Aloyse Waly Diouf maanaam di wax sénégalais bilan bi loolee léegi tey mu dakk yéen a kaay di source amu xëy di ñu ko xamal ba tey ci biir yéen gi di libération mu xëy dikk ci mbiri Lamine Diack ak lu soxal atte bi nga xam ne moom lañ koy atte mbirum guerre ca Paris la France yéen a kaay gi nee na en tout cas mbir yi doy na waara maanaam génn Lamine Diack ci mball gi maanaam moo jafe lool la ndax ki nga xam ne mooy doom ji te Massata Diack wane nañu ay tras yoo xam ne gis nañ ne doom ji maanaam yónnee na ko xaalis bu takko takko ne na ko cinquante mille euros yónnee na ko lu toll ci cent soixante dix mille dollars jaar ci ab comptam ak lu toll ci deux cent soixante mille neuf cent vingt quatre dollars loolee lépp maanaam xaalis la boo xamante ni jaaba jonge dugg ci compte bancaire Lamine Diack yéen a kaay gi xëy ci giraawaleeg njombe gi nga xam ne moo amoon ca almati maanaam Iba Diallo mi nga xam ne dafa faatu ñuy wax ne dafa ñoll lu ëpp ki nga xamante ni moo leen doon jox drogue bi ñu koy wax David Dieng kookee jamono ji daat nañ koy teg loxo yéen a kaay gi di Les Échos dikk na ci beneenub scandale boo xamante ni am na Senelec ndax nee na contrat bi nga xam ne moo dox diggante Pape Ali Gueye Excelec ak Makhtar Cissé contrat la boo xamante ni bu doy war la waaye nag yéen a kaay gi de la Tribune dafa am lu gis luy ñuul ci soow mi ni ñëpp jàpp nañ ne kàngam la te mën naa wuutu Macky Sall ñëpp di ko laam-laamee est-ce que du loolee moo naqari Macky Sall ba mu bëgg a sànq Makhtar Cissé ko ci contrat yi yéen a kaay gi du sunu làmb xëy di samp ab laaj na jamono ji làmb ji ak jafe-jafe yi nga xamante ni am na ko ndax jotul état bu Sénégal maanaam jokk daal di sauver làmb ji yéen a kaay gi di Dakar Times mu xëy di ñu xamal lan ñu su dee état bu wul làmb ji Gaston moom bëgg naa sauver làmb ji ndax nee na ginnaaw Covid bi dina daal di boo xam ne fa la làmb ji jógee maanaam suqaliku dellu fa mu nekkoon